xam nga organisation boo gis dafa am euh, règle yu muy doxee te boo nangoo euh, nga adhérer ci benn organisation da ngay nangu en même temps nga renoncer à une partie de ta liberté loolu mooy tax ngeen mën a teg ay règle mën a bokk donc Yewwi Askan bi dafa def clairement ci chartam mu ne euh, benn parti membre warul def lu ñuy woowee compromis wala compromission avec Macky Sall cest pour man piège bi foofu la c'est-à-dire comment yow nga nekk politique di politique depuis les années 2000 si je me trompe 35 ans ah 35 ans après ngeen ñu ñu bind loolu dans une charte xam naa euphorie bi moo leen yóbbu woon voilà ngeen ngeen ngeen signé ko dañ def compromission avec Macky Sall donc boo leen signé charte boobu tamit ensuite ñu ne bu ñuy dem bu ñu waree dem dialogue yeewi askan bi mooy dem ba ñu waxee waxu dialogue bi yeewu askan bi ne demul yóbbantewul est-ce que du woon lu jaadu ngeen respecter charte yeewu askan wi au lieu ngeen bëgg a invoquer seen liberté bi ngeen am en tant que parti membre pour aller répondre au dialogue de de de de, de Macky Sall. bonne question alors je te dis maintenant il y a deux choses bu ñu bindoon ñun ci benn charte entendement boobu nit ñi am. c'est-à-dire que nous sommes de l'opposition waaye du ñu am aucun compromis avec le pouvoir c'est-à-dire à de ce moment nous serions des gens dangereux. mais loolu lañ bind ci charte. oui oui mais moom laa la expliqué c'est-à-dire moo tax ma ne bi si nit di am mooy loolu mooy pas un cadre de compromis ak Macky Sall d'abord Macky Sall neewu fa man neewu ma fa Khalifa Sall neewu fa bu ñi leader yëpp kenn neewu fa mais tey jii lan lañu fay discuter. caution lan la ñuy defee caution naka la ñuy demee parrainage naka la ñuy régler problème candidature yi euh, ban euh, kan ban autorité mooy organiser élection yi loolu moom mos a am Sénégal c'est-à-dire si tu dis que dama participer si dialogue bi mooy en réalité même les concertations yi dana amoon autour du ministre de l'intérieur tu considères que concertation yooyu aujourd'hui euh, tey boo ko defee compromis la au sens en tout cas bu ñu ko bëgg a. non dialogue bi c'est différent des consultations devant mener euh, à l'organisation des élections bii c'est des concertations devant mener à l'organisation des élections mais pas que. toutes les questions non non non toutes les questions qui sont posées sur les élections cinq six points moo nekk sur la la la question troisième candidature la question de des autorités yi organiser élection yi il y a d'autres propositions de loi bu nañ ci wax xëy na bu ñu ci euh, ñu ci yeggee la question des articles 29 30 31 et 57 yu nekk ci biir code bi et la question de la participation de tout le monde aux élections c'est ça le, le les termes de référence de la commission politique y a rien d'autre que ça Vous voulez dire que maintenant, nous, on n'a pas à aller participer justement à. mais vous avez signé la charte en toute conscience non oui justement c'est-à-dire c'est-à-dire xam nga luy tudd lan la ñuy wax si biir sax dañu ne compromis ak compromission amu si xam nga luy compromis par exemple tey aujourd'hui man ma doon dem tey si benn élection ñu tudd benn affaire et c'est ça qui était visé mooy nañ leen dem tey si biir élection man ma am compromis ak Macky Sall ne dama lay jàppale yow ça il faut mu am une contrepartie individuelle bi am ci biir si biir affaire bi. loolu mooy compromis c'est-à-dire compromis entre man ak Macky Sall à titre individuel ça ne peut signifier que ça bu signifier wu loolu ça devient dangereux parce que on ne peut pas être dans une démocratie pas de dialogue il y a pas d'entente entre l'opposition et ça veut que donc on règle tous nos problèmes par la confrontation tout le temps. mais un moment un qu'on introduise la compromission ça je suis tout à fait d'accord parce que c'est la compromission mooy terme mooy loo xam ne contre valeur Et eh, ça se passe tous les jours yow ak say employés yow ak leneen yow ak leneen compromission maintenant c'est dangereux mais un dans le cadre de espace politique pacifié il faut vraiment le souhaiter le souhaiter tous mais, les jours mais mais mais xam nga euh, peut-être que ni ñu demee ci dialogue bi moo posé problème mhm. ñoom bu ñu waxee loolu ñu woote dialogue Barthélémy toog na fii mu ne si lui kii à l'initiative de ce de ce dialogue la il va plus loin en disant que lam lu mu ci dox yëpp wax na ko Khalifa Sall ak euh, ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko a démenti nee na moom yëgu ci dara te yéen da ngeen bokk affaire bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ils ont la même légitimité toutes les entités ont la même légitimité xalaatoo ne yéen mënoon ngeen au sein de Yewwi Askan bi ngeen défendre pourquoi ngeen war a dem dialogue ba ngeen arrivé à une solution. Ah, plutôt que ñu jékkee-jékki rek. je suis tout à fait d'accord euh, avec yow. et ça je te confirme. waaw ah. c'est-à-dire gis nga da nga da nga bàyyiwul xel xam nga gis naa la nga invité fii Ahmed Aïdara mu ne la man Cheikh Tidiane Dièye moomu njëkk a woo di ma laaj lan mooy sa position si dialogue bi. sa veut dire quoi ça veut dire que en fait au lieu ñun en toute responsabilité ñu poser le débat au niveau de Yewwi Askan Wi on s'est mis à se compter. on a voulu passer faire passer une décision par la majorité au niveau de. ah dañu def genre référendum. c'est ça sans pour autant poser le, le débat, en interne posé. moi je suis allé dire aux gens de de Yewwi mais faites attention à ce que vous posez il faut le dire ah damay wax ni ñoom ñëpp ku nekk nga koy dégg. je dis bu ngeen bu ñu tollee ci situation mel nii il faut qu'on parvienne à poser benn acte boo xamante ne ça rend ça met ça rend confortable ku nekk Ahmed mi ngi lay fàttali fii ce que j'avais dit d'ailleurs aux gens j'ai dit faites attention Yewwi Askan Wi aujourd'hui situation yi nekk ci biir nit ñi ñoo benn dafa am ñoo xamante ne ñoom mënuñoo nekk candidat parce que dañ leen a condamné woon conseil constitutionnel nee na leen yéen du ngeen nekk candidat injustement d'ailleurs mais de façon ils ne sont am na koo xamante ne moom ñu ngi koy fexeel pour bu du doon candidat am na ñoo xamante ni ñoom ils sont candidats en tout état de cause parce que amuñu condamnation amuñu dara léegi est-ce que ñetti situation yooyu mën nga leen a analyser jël une décision sur te jëloo en fait les particularités de chaque individualité ñu toog na ñoom demuñu dialogue mais ils ont raison de dire ñoom du ñu dem dialogue parce que ñoom de toute façon ils vont être candidats Khalifa Sall bi nga xam ne moom tegoon nañ ko déjà nekkul candidat 2014 la mujjee participer élection 2019 mi ngi woon si biir kaso bi mu dem candidat ba pare ñu nangu mandaam si moom nangu à la fois mandat maire ak mandat wu député ba mu nekkee si biir kaso bi ñi fi nekk tey demoon nañu dialogue mu ñëw génnaat ñu demaat élection moom élection yi dem yëpp mooy bokk participer te mun ta nekk candidat mënul nekk si benn yoon ci biir élection yi candidat est-ce que kooku da nga bëgg a wax ne ko yow na nga a jël sa situation nga mettre ko euh, si même niveau que ki nga xamante ne moom amul benn candidature amul benn problème de candidature c'est ça que je suis en moom laa si moom laa jëm ñetteel boo ñu doon xam nga dama laa jox ñeneen ñii dañoo mën a doon candidat kii moom aye nañ ko bu doon candidat ba noppi kii moom dafa nekk ci yoon boo xamante dañ koy fexeel ne mun a nekk candidat jusqu'à aujourd'hui où je vous parle il est encore candidat mais ñi ngi a donc ñaar ñii mënuñoo nekk candidat tout le reste ñoom mun nañoo doon doon candidat léegi bu dee da ngay régler maintenant situation bu mel noonu est-ce que dangay jël ne ñoom ñëpp naa leen mettre sur le même pied d'égalité et donc dire je rejette totalement le dialogue kenn du dem du dem dialogue su fekkante ne da nga ne oui mais dañoo waxee ak xeex pour que Ousmane Sonko ne soit pas condamné condamné xeex yëpp ñun ñëpp ñu àndandoo si mais même boo xeexee ba Ousmane Sonko kenn condamné wu ko du texe Khalifa Sall du doon candidat et donc tu lui dis maintenant moom son destin ne ko euh, attaché à au au des autres. mais, ça... mais mais mais lépp ci njëlbeen bi la. parce ouais. que même Khalifa Sall. oui oui oui même non, même Khalifa Sall. il a oublié d'évoquer son sort Khalifa Sall toutes les sorties qu'il a faites il a parlé de Ousmane Sonko. non c'est-à-dire sax a parlé d'élection et de généralité. je suis tout à fait d'accord. le problème de Khalifa Sall n'a jamais été posé ngeen dem ba psychologiquement. au niveau de yeewi askan bi problème Ousmane Sonko moo nekk ci bopp yi. te au début da ngeen ko nangu. oui non non non personne mosu ko nangu non c'est-à-dire xam nga man même bu dee da ngay poser débat bi noonu sax je te dis man bu ma nit jaayee générosité loo ma jaayee ma fay la lu ëpp loolu. donc du tax man na fàttali yow da ngaa nekk situation situation particulière bopp c'est-à-dire xam nga li ñuy li may wax nii nekkuma di ko wax sur xiiroo ak ak ngaayoo je suis juste de poser objectivement le débat tel que ça s'est posé au Askan Wi xam nga moi je fais partie de ceux qui ont compris démarche bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko am ci biir euh, ci biir euh, euh, pour xeex parce que qu'est-ce qui s'est passé moom dafa toog benn jour gis na Karim Wade fu ñu ko jaarale gis xalifa Sall fu ñu ko jaarale mu xam ne la posture républicaine là par rapport a ce régime là bu ma ko amee fa ñuy jaarale ne fa la foofu lañu may jaarale gars yi génnal ko ay procédures yu bees yu bëri ndax képp ngepp képp ko alors qu'est-ce qu'il fait il décide de su ma toogee di xaar c'est-à-dire nu ñu defoon ba ñëwee nekkuñu candidat fa la jaay il a il faut mu am aujourd'hui nekk dans une logique de confrontation pour jàll. moo tax fu mu wootee di muy xalaat pourquoi xam nga xam nga tamit. Euh, <laughs> je ne le dire. mais tu peux moi je je te ah <laughs> xam nga tamit peut-être que ñi nekk Yewwi à un moment donné Ousmane ko aussi xalaatul am kese il s'est battu. pour Barthélémy Diaz il s'est battu pour la coalition ci local yi il s'est investi il a porte tout le monde il n'était pas à Ziguinchor en train campagne il est venu prêter main forte est-ce que yéen tamit war ngeen dans dans un moment de l'histoire au lieu ngeen yéen tamit ngeen xam ne li leen wokk moo xuri Ousmane Sonko ngeen porté yëpp pourquoi pas ngeen poser débat bi ne euh, nañu teggi Ousmane Sonko li ñu ko teg na nekk candidat na Khalifa Sall nekk candidat nañu libérer détenus politiques yi que le débat soit posé ngeen dem au lieu de dire ah man su ma toppee ñii kat du ma nekk candidat ngeen def échappée solitaire ngeen def te Khalifa Sall kilifa la ci ci coalition bi il est président il fut président de la conférence des leaders. mais xanaa da nga suivre le discours de Khalifa devant Macky non j'ai suivi. Ah, mais li may wax ni c'est antérieur à ça. non non non non bi mu demee ci Macky Sall xam nga loolu politique la. non non non il a défendu Ousmane Sonko mais loolu loolu politique la. politique la j'ajoute autre chose ba tey jii tey jii demee di ngeen am des informations certainement le même débat moo am au niveau justement du dialogue jusqu'à présent aujourd'hui les gens ont passé une journée houleuse autour de ces questions-là donc du woon kese déclaration publique politique si biti loolu la ñuy yëpp tam suñu nit ñi demoon fekk ci biir dialogue bi. man ñi dem si yàlla gi loolu laa leen yëpp je dis man du ma nekk complice ou liquidation de benn candidat bu nekk ci euh, ci euh, ci ci ñun fii si biir ak ñun biir Yewwi Askan Wi que toutes les questions doivent être posées. C'est du déclaratif et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du dialogue. Et je te dis qu'aujourd'hui, au niveau du dialogue, c'est la question qui a été posée qui a été au centre justement de tous les débats. Ñu fa nekk nañ ko expliquer donc il y a aucun problème moi je me fais pas de problème à ce niveau-là ah, je reviens d'ailleurs à, à, à quelque chose gis nga booy poser les débats comme ça et tu as raison de le dire c'est-à-dire que nous avons été tout à fait solidaires tous solidaires nekk benn logique benn dynamique très forte au niveau justement de de Yewwi Askan Wi image bu rafet la ñu jaay Sénégalais espoir bu rafet la ñu jox la ñu la ñu jox Sénégalais yi je te dis le seul problème que nous avons aujourd'hui c'est que au moment bu ñu waxee poser le débat discuter si sérieusement on n'en a pas discuté c'est-à-dire que dañoo nekk di contenter si sunu